salaamaaleykum mbokk internet yi tey jii rek dañuy ñëwaat si li nga xamante ni mooy combat bu amoon foofee ca arène nationale diggante kookee di bombardier nga xamante ni mooy Balla Gaye bu géejawaay waaye nag combat bi nag nekkoon na combat bi nga xamante ni combat bu amateur yëpp doon xaar la diggante bombardier ak ki nga xamante ni mooy Balla Gaye bu mbuur ginnaaw ba arbitre bi sifflé rek ñoom ñaar mbër yooyu rek dañ doon léewtoo waaye nag ginnaaw loolee am na lu ñu doon def muy ay xeex di dóorante ñoom ñaar di dóorante ba Balla Gaye numéro 2 sax moom moo li nga xamante ni mooy ay action waaye nag dafa mel ni bombardier Bombardier euh, dafa mujj euh, diis euh, ginnaaw ba ñu bëree li nga xamante ni mooy six jàpp sept minutes mu ñoom ñaar rek defoon nañ ay action waaye nag action ba ci géew ba sax la commencé waaye dafa dem sa saaku ya si la si nduur ne ñaari mbër kenn daalu sa morom dañuy sifflewaat li nga mooy combat waaye nag bañ nañ ñaari mbër yooyu rek ba ñu bëree minutes si li nga mooy mooy foofee ca arène nationale mu doon combat boo xamante Meng moo ko Euh, match nul euh, waaye nag avant ñoo match nul euh, kii di Bombardier ak Balla Gaye numéro 2 dañoo bëri seen 15 minutes ba ñu bëri 15 minutes ñaari mbër yooyu rek si lañ dem gisaat li nga xamante ni mooy seen coach ngir nga xamante ni mooy conseil mu doon combat boo xamante ni combat bu ñëpp doon xaar la si wàllu bëri si wàllu xeex naam sax am na waaye nag ko doon xaar muy Balla Gaye numéro 2 moom nag daful li nga xamante ni loolu la waroon def wala la doon def bu njëkk rek ngir daan ki nga xamante ni mooy Bombardier waaye nag ginnaaw ba ñu ñëwaatee si li nga xamante ni mooy seen combat combat boobu ñoom ñaar nag si lañ xeex xeex bu métti ba Balla Gaye euh, numéro 2 euh, moo yóbbu ki nga xamante ni euh, mooy Bombardier foofee ca Ardo li nga xamante ni mooy blessure mu doon combat boo a doon enjeu ba ñu bëree li nga xamante ni mooy vingt minutes ñoom ñaar ku nekk am na li nga xamante mooy avertissement bu ñu compté si avertissement yi rek nag ki nga xamante ni mooy bombardier dafa mel ni moo gën a néewle li nga xamante ni mooy ay avertissement ginnaaw euh, dafa am euh, ni euh, mooy bi nekk si ki nga xamante ni mooy bombardier moom nag si la jeex na moom bombardier dafa toog di déglu ki nga xamante ni mooy Balla Gaye numéro deux mu def action ba juum wala sax mu taxaw noonu rek ba temps bi jeex mu jël li nga xamante ni mooy ndam li kon mbokk yi Balla Gaye numéro deux ñàkk na si kanamu bombardier ginnaaw ba mu amee li nga xamante ni mooy juróom avertissement si combat